bismillahi rahmaani rahim gouverneur sas ngeen ma lu rëy parce que en quinze minutes wax économie Touba jafe na surtout ci cadre bi ngeen ko placé les fondements économiques du mouridisme et bu dul woon gouverneur ni mu doonee sama kilifa ak professeur Lamine amoon naa njaaxle pour ñëw mais nee naa ko dinaa ñëw ngir yow ndax lii ma nekke def na ci kattanam personne kon defal naa liggéey naa lu bari ci région bi avant bésu tey donc ci point yi mu wax rek Diourbel am na ay opportunité yu bari déjà li ko sànc ni mu ko waxee ba Serigne Touba di dem Touba c'était dans le vide da ngeen gis Touba bu mu mel tey une croissance économique extraordinaire et fulgurante beneen firnde donc ci stratégie boobu système mu colonna bi li Serigne wu def xel ko ngeen dem Belel ngeen dem Porokhane ngeen dem feneen ngeen dem feneen un système de colonna basé. sur la valorisation de la ressource naturelle terre et sur la ressource humaine des personnes éduquées et formées pour mën a jëriñ seen bopp bañ a dépendre ci kenn loolu mooy en partie fondement philosophie mouride ci région Diourbel chance bi ñu am am nañu des ressources humaines de qualité xuus na ko sànq ci position bi mu jox diaspora bi diaspora bi mën nañu wax ni bu ñu mënoon am on quatrième département fédérateur ci région bi mooy nekk quatrième région quatrième département région Diourbel ndax 2015 apportu immigration bi ci Sénégal xayma nañ ko à hauteur de neuf cent soixante quatorze milliards neuf cent soixante quatorze milliards yooyu indi nañ fi dix sept pour cent de ces neuf cent quatorze après Dakar vingt sept pour cent Kaolack topp ci quinze pour cent kon sunu problématique mooy naka la ñuy def. ba optimiser valoriser canaliser ressources yooyu pour njaareem gën a jëm kanam loolu suñu xalaat foofu war dem naka la ñuy def ba opportunité boobu jëriñ région de Diourbel ah ndax loolu ni ko gouverneur waxee sànq président de la république la fi nekkal mais président de la république dafa mettre benn stratégie boo xam ne moom la ñu tuddee plan Sénégal émergent PSE plan Sénégal émergent boobu euh, ñetti baaxaas la keneen keroog bu ñuy def installation ziaru Touba bi zone industrielle artisanale rurale de Touba dafa woon ne PSE ñetti tànk la mais war nañu wax ne PSE ñeenti tànk la te Touba mooy ñeenteelu tànk bi donc premier tànk bi mooy transformation structurelle de l'économie et la croissance loolu ñaareem la fekk ba muy mbéy muy càmm muy transport deuxième bi artisanat beneen bi muy am na ku ko wax wala gouverneur mu ko wax la valorisation du capital humain mooy deuxième axe PSE bi kon loolu philosophie enseignement religieux ak euh, triptyque bi nga xam ne moo fondé le le mouridisme ci liggéey jàng dëgg ndigal kon loolu lu am solo la ñu def ko ci nit ñi loolu bu nekkee ci xolu nit ñi xelu nit ñi presque li ñu ragal ci affaire terrorisme wala leneen nit ku xamul lañu yóbba këf mais nit ku xam fu mu bokk xam lu mu doon këf ko dina jafe kon war nañu góorgóorlu ci valorisation capital humain boobu mais aussi renforcer dëgëral njàng mi yee nit ñi bu ñu xam ñoom ñooy ñan donc quinze minutes pour wax ci vraiment li ñu ci war a wax bëri na parce que boo xoolee kii note sur les opportunités d'affaires dans la région de Diourbel nga xool artisanat agriculture élevage commerce transport ah enseignement lépp loo xam ne Diourbel am na ko ci ay ressources ak potentialité te laajul dara lu dul ñu valoriser ko pour peut-être terminer bu ma defee le conseil des ministres délocalisé bu ñu defoon Diourbel presque cent milliards mais boo xoolee cinq cent milliards yi euh, importance bi infrastructure routière am ba tax autoroute euh, Dakar Thiès bi président décidé prolongement bi. Euh, aboutissement bi nag nekk Touba pour un coût de quatre cent soixante dix quatre cent dix milliards kese ak leneen ak leneen ak leneen yoo xam ne pratiquement euh, recommandation yooyu biñ koy def barke de euh, le vingt huit octobre ci biir conférence territoriale bi gis nañu Touba liñ ci représenté macha allah te loolu buñ demee. beneen réaliser nañ ko à cinquante huit virgule zéro sept pour cent dans la région de Diourbel war a sant yàlla donc sur cinquante neuf projets nañ ne trente trois pour cent yi réalisé nañ ko dans la région de Diourbel dans le cadre de la conférence territoriale publique kon loolu peut-être li may ñaax euh, président euh, affaire bi daf ma bett rek moo tax mais. depuis quatre-vingt-dix-huit mën naa wax ne ñaanu Serigne Touba moo tax deewuma bi ma defee accident parce que ñëpp dañu waxoon ne du ma ak Bambey kon bu ma toogee bay ñëw wax yéen fii ñoo ne alhamdulilahi rabbil alamin kon maa ngi sakku seen ñaan ngeen ñaanal ma su ma mënoon ke sëriñ bi moom ku mënul gis yéen ñi ko mën a gis yéen ne ko mu ñaanal sant naa yàlla alhamdulilah léegi nag kër gi fu ñuy wax ne c'est une doléance bi nga xam pour ngeen porter ko sëriñ bi mu joxe ndigal nee mu mel dewen mu bañ a mel noonu kooku nañ ko def un defi à relever pour la restauration et la rénovation de la maison où Serigne Touba a été gardé en résidence jërë ngeen jëf ngeen baal. da nga foo xam ne nii sax euh, gën nga yëngalaat sama sama xol ñibbise bi dama mas a toog ak Serigne Ousmane Mbacke moom Daaru Kudos ñu intervenir ci CRD màggal gi ba ma njëkkee ñibbisi mën a mën na ma yéen ñëpp da ngeen ñibbisi ma ne ko mbàkkeel tax ma ne alali sëñ Touba du réer alali sëñ Touba du réer nitu sëñ Touba lu mu yàgg yàgg lu mu guddi guddi dana delluwaat sëñ Touba loolu lu ma lu ma lu ma xam la Diourbel gi ku ne man danga fi def 72 heures man la looy wax nii te pourtant fi laa jànge ba saam njàng mat ma def sama étude feneen léegi nag fi laa gën a sax fa mu doon yóotu yépp génn naa ci li ko wokk nag moom mi moo ko xuri ndax moom it bi mu nekkee université amoon nay potentialité non seulement servir le Sénégal mais servir à l'extérieur mais dafa bàyyi yooyu yëpp ñëw ne damay service Sénégal amoon na opportunité yoo xam ne nii tey su fekkoon affaire gain la rek toogoon tey ci extérieur li ñu wax fuite de cerveau vraiment dalu ko fexe na aussi ba investir ci njaareem kon nag loolu aussi ña ngi koy sant sëriñ bi di ko ko gërëmee. aspect économie bi nag monsieur le gouverneur li ma ci gën a sensibiliser man en tant qu'économiste c'est pas une théorie en tant que tell mais je vais comportement. 15 ans de présence à Diourbel mais aussi 15 ans de comportement loolu aussi nit ñi dañ koy fàtte Serigne Touba am na njaareem fukki at ak juróom mais fukki at ak juróom yëpp fukki at ak juróomi comportement la maanaam nekkin la. sax na ñoom la jox doole ji mi bi yi mos a ñoom ci lenn ba li mu bëgg a def def na ko ci biir njaareem yi nga xam ne li mu fi toog mosu ko toog fenn. te kenn mësu koo dégg ci biir kër gu mag gi mu nekkoon ñu dégg fa balu fetal wala jaasi ju kon comportement je pense que c'est très important te en tant que sa man comportement moom a gën a intéressé ci liggéeyu Serigne Touba ndax comportement moo yore réew comportement moo yore yé moo moo yore réew Serigne Touba li mu njëkk a jàngale ci mànnum économie li gën a feeñ ci liggéeyam te man je me réfère à un ouvrage de Omar Ba malheureusement c'est un ouvrage qui ne pas vendu sama benn xarit bu nekkoon euh, fële archive nationale moom a ko may ouvrage boobu daanaka jaar-jaari sëriñ bi yëpp mi ngi ci de façon officielle comme de façon officieuse mais kenn mësu ko publier kenn mësu koo jaay te lu ci bari aussi c'est des rapports qui ont été faits mu nekk loo xam ne kon lu sincère la lim njëkk a def mooy ku bëggoon réewam la ku gëmoon yàlla la mais daf ca boole bëgg réew mi bëgg réew mi mooy économiquement li mas a def mooy keroog bi franc CFA daanoo mu ci njëkk a contribuer pour une valeur de cinq cent mille francs bi xaalis bi daanoo CFA Serigne Touba intervenir na ci pour une valeur de cinq cent mille francs kooku ku gëmul réew mënu ko def ku bëggul sa réew mënu ko def deuxième chose bi nga xam ne aussi moom ma gën a intéressé mooy daf ñu recommandé màggal màggal de Touba sëñ bi da koo digle defal ko boppam ma dégg ci benn boroom xam-xam ne màggal day dindi ci nit ñetti jikko ñetti jikko da koy dindi ci nit ñetti jikko yi bi ci njëkk kooku doomu Ibou Saaxu laa dégg benn bis mu koy wax mu ne képp ku màggal Touba dutoo nay képp ku màggal Touba doo siis képp lu màggal Touba doo rëy nay siis rëy am na impact économique ku nay du joxe ku nay du joxe ku nay li mu yor daf koy thésauriser te ñëpp xam ne thésaurisation luy freinem réew la kon loolu aussi culture la boo xam ne ni Serigne Touba def na ko ci murid yi ba mu gënee ba mu ñëwee itam mu yokkaat ci joxe addiya addiya comme li ko recteur waxee léegi sëñ bi da koo digle pour murit gën di mën a joxe te képp ku joxe doo nay te képp ku nay képp koo xam ne doo nay nga aussi doo dem safara sëñ Fallou Mbacké ñëpp xamoon nañ tabeem dégg naa benn bis dañ koo mas a ne ko sëñ bi li ngay joxe doy na waar ndax yaa ngi ko def ak sa sago mun leen dama bañ a dem safara joxe daa metti dama bañ dem safara ndax joxe daa metti kooku sëñ Fallou wax na ko joxe reen la dafa sax ci xol sax na ci xol xol joxe goo sax goo xam ni sembi ko jafe na kon nag joxe dafa metti jafe dafa sax dafa dafa sax ci xol six six mooy lan esprit de koo xam ne na nga siis amoo esprit de partage képp ko yóbbu Tuubaa mu siis da nga koy xam da nga ñëw ci benn kilifa mu mu mu mu lay berneel ne sëñ bi àggal ci biir mu tegal la booli boo xam ne da ngay yaa ngi gestu xool ñu war a ñëw te fekk yàlla xam ne yow dong la ko beral kon partage am na fa rëy rëy gi képp ko xam nga rëy nga aussi sàggane nga sa bopp ci lu bari xañ nga sa bopp ci lu bari rëy day day tax nga fermé wu économiquement képp ku dem Tuubaa da nga gis loo xam ni tey ay kilifa lañ ràngoo seen euh, laxasaay di liggéeyal sëriñ bi kon ñooñu réunion kon enseignement boobu aussi ci màggal Tuuba dafa am des impacts économiques impact économiques yooyu nag mooy ñett yi nga xam ne comportement la kon man sama vision économique ci Serigne Touba surtout man ci comportement laa ko xoolee. impact yi. kooku aussi dafa rejoindre li nga xam ne wax nañ ko mooy danga war a liggéey ba doo war a fa euh, yaakaar ne doo faatu nga war a jàmm yàlla ba yaakaar ni tey tey tey ci saa si nga war a faatu liggéey boobu nag moom la Sëriñ Tuubaa inculqué murid inculqué ko jullit ji ndax su ma nee murid rek damay xaw a restreindre jullit sax laa ne jamais mourir économiquement c'est quoi c'est chercher son autonomie c'est aussi imposer son autorité képp koo xam ne ni eh, ci wàllu koom bëgg ko fay war ngaa jéem a moom sa bopp war nga jéem a am sa autorité président actuel bii de la république bi mu nekkee ministre leen l'intérieur je me rappelle benn discours bi mu defoon ci cérémonie officielle Magal Touba boobu ministre de l'intérieur la mooy Macky Sall mu ne Touba neex na ñoo defal ndax ku ñëw fekk leen ci ku dem bàyyi leen ci kon ñoom autorités yi xam nañ ñe eh, ne Touba ñoom am nañ seen seen autonomie Touba am nañ seen autorité li leen ko may mooy fàggu nañ ci seen wàllu ci seen wàllu euh, liggéey loo xam ne nii euh, gannaaw yàlla wees euh, yaakaaruñ ci kenn sëñ Saliou Mbacke mas na toog bi mu njëkkee toog dégg naa ñu koy naan màggal Touba gi di ko évaluer lan lañ fa war a yóbbu mu ne leen man duma ñaan ko jeexal du ñaan kuy jeexal kuy jeexal duma ko ñaan luñ ko mos a yónnee itam ci ci ci ci Touba toujours rek da koy jox ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole esprit de partage boobu toujours te aussi itam moo am ci ci yoon wi. ne jamais mourir aussi c'est quoi c'est su bañee faatu parce que dama ne da nga war a liggéey ba doo faatu li lay tee faatu mooy moom ci laa nekk mooy aussi da nga war am esprit de prévision prévision mooy lan di fàggu lu ñëw. te fàggu googu xëy na murid yi ñu ci bay bàyyiwuñ ci xel képp ku fi nekkal Serigne Touba rek yaa ngi ko doon def ba ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci kii fi toog ñoom ñëpp ay fàggukat fi toog tey fàggu mu fàggoo tax lépp loo xam ne nii mi ngi jëm ci yoonu yàlla xaaru ci taalibe xaaru ci kenn moo ci jiitu danañ def loo xam ne dañ naan kii fan la ko war a jële kon nag pouvoir économique boobu aussi lu ko may murid yi mooy gëm guñ gëm yàlla mais aussi li ñu def seen xel mooy si économiquement c'est des gens qui ont un esprit de prévision kon ab taalibe murit war naa fàkku maintenant mourir mourir économiquement c'est quoi c'est faire du social laisser sa place à Dieu dans tous les actes dans dans les actes de tous les jours ki nga xam ne yaakaar ne su faatoo tey du mooy ki nga xam ne euh, euh, bàyyil na place yàlla ci wàllu koomam sëñ Saliou Mbacke danaa wax ne suñu biir yi buñ ko toppatoo la ci wàll yàllay def ñu ngi ko ci def bis bu nekk kenn ki ne gimiñ kuñ ubbi danañ ci def lañ ci war a def mais li ñu war a fàggu mooy la ñuy la ñuy war a jiital suñuy bàmmeel ñoom ñëpp seen enseignement économie jëm na foofu c'est des gens qui font du social xel comme li muy rëy rëy rëy lañ fay tëral lépp ci ay revenu daanaka social lay jëm construction mosquée dimbale ay jàmm Masaalikul Jinaan gi ñuy wax li muy rëy rëy yëpp social dong la nañ jàmm yàlla jege yàlla kon nag monsieur le recteur ci sama gis-gis may ni ngeen ma ni ngeen bette monsieur Ndong le planificateur moom ngeen ma bette sama gis-gis waroon naa gën a yaatu lii lu ci ëpp nag ma xam ne sama message la lu ci jiitam ngeen ñaanal ma rek lii gën a sax doomi njaareem gën a ñëw njaareem taxawu njaareem taxawu dëkk bi gën a roy Sëñ Tuubaa ci comportement am murit day civilisé am murit di tooñ am murit day jéem roy royukaay muy sëriñ bi sëriñ bi am na lu mu bëgg lépp te mu mus sa tooñ këpp sëriñ bi am na lu mu bëgg lépp te amul indiscipline te loolu lépp tam sëriñ bi nañu ko kilifa yaa ngi fi na leen gën a topp loolu laa ci amoon ngeen jéggal ma maa ngi leen di sant di leen gërëm moom mu ne nit ki lay defar nit ki nag bu defaroo ci comportement mu nga koy gisee su yàqoo it ci comportement la donc en partant des comportements décrire nga naka la murit bi war a travailler pour le développement économique du mouridisme mais aussi du pays loolu euh, cité nga exemple yu bari et surtout li ñu ci neex mooy exemple kilifa yi nga joxe dem joxe exemple direct xalif yi te loolu boo ko boo ko defee rek xam nga am nañ le comportement exemplaire comportement yooyu sëñ bi bind ko bàyyi fi ba pare it wone ko fi mu def 15 ans nag ku xalaat di nga xam ne fa la ko gën a wone nga gis cheikh yi ko waroon ñu gis kenn yi feeñ di l'amour envers le cheikh di liggéey ci service yi nga xam ne mooy tax économie bi développé mu nga xam ne comportement ngay am balaa ngay def service bi ñu koy wax xidma mooy liggéey bi képp xam ne ne murit boo koy observé li lay frappé moom mooy li muy def pour jege boroomam mais aussi liggéey ku jaar yoon moom doo xuloog sa patron boo nekkee murit ci mbiru liggéey bi après addiya bi ñëw complété ko et wax nga objectif addiya bi léegi ñoo ngi lay remercier ñu jàll nag léegi ci intervention Serigne du Diakhaté moom itam waa njaareem la xam ngeen ko jaxate moom boo ko waxee jëratul présentation <laughs> mais damay bàyyi suñu mag Thierno buy intervenir dina présenté waale sëñ Modou présenté boppam di magistrat di koo xam ni dafa gëm développement Diourbel bi nekk ci biir kuréel bi bañ ko ba jël président commission relation extérieures nga xam ne lii ci panel bi ñun ñoo ci doon liggéey ba yàlla def tey ñu koy taxaw moom nag jur président de chambre fii ci Thiès moom itam ñibbisi bi c'est en cours <laughs> parce que am na léegi kone ma man kat dafa mel ni ñibbi si commencé naa waaye dama tag Thiès moom mi ngi Thiès mais bu moytuwul <laughs> li Aly doon wax léegi dina ko dal waaye ñibbisi si na rek parce que moom il est le temps ici nekk président du réseau des cadres du Bawol comme on sait que l'économie c'est l'algèbre du droit l'économie c'est l'algèbre du droit donc moom itam dina indi son point de vue de juriste ci économie mouride bi